laa bëgg a comprendre si sa dernière publication da nga la libération de Ousmane Sonko. bien sûr euh, lan ci ci ci ci ban soubassement euh, nga ko nga ko teg. pour jàmm. pour jàmm. pour jàmm. ok pour jàmm am na waxtaan ak Sonko pour jàmm am nañu libérer Sonko loolu loolu la pour ñu apaiser day am ay moment yoo xam ne c'est vrai ay erreur yoo xam ne Sonko def na ko ay erreur yu grave am na ay violence am na ay truc d'accord mais mais mais yéen am na dans le passé soo xoolee Wade am na la aussi lu ñu ko tiiñaloon ay affaires yu grave fii euh, dans les années 88 gis nañu sax ay ay ay ay kii ñu éclaté ay. Euh, ay oto ay oto ak yooyu yëpp mais si tu veux démocratie moo mel noonu démocratie c'est pas la perfection démocratie dafay am ay problème bu amee problème. problème mu démocratie eh, mais, mais est-ce que que des gens ont trouvé la la la mort dans ces explosions là. c'était des c'était des attentats il y a failli de mort. ma fii bari na ay affaires yoo xam ne am na ay mort comme policiers yi fi yi ñu fi reyoon mu ngi fii yooyu yëpp c'est des c'est des choses yoo xam c'est-à-dire ñun violence politique Sénégal dafa am histoire violence politique en Afrique sax fii sax mun na am ces formes tout à fait atténuées mais quel que soit alpha bu ñu demee ba à un certain niveau. parce que polarisation bi am Sénégal mosul am mosuma ko gis haine bi am léegi nga xam ne kenn ràññeetul lu baax ak lu bon mais musuñu ko gis. mais mais xam nga la laa bëgg a comprendre. loolu moo tax ma ne. il faut euh, nguur gi tey man su ma doon euh, Macky Sall wala su fekkoon ne nekk naa conseil Macky dama ko naan fii nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi fi tëdd bàyyi ko pour de raisons humanitaires. mais mais mais Macky Sall nan la koy bàyyee Ousmane Sonko. ci dossier bi ñu ko mais nan la ñu bàyyee euh, ma ma. Juan Franco lañ ko bàyyee. Ousmane euh, on en vient à Ousmane Sonko d'abord Ousmane Sonko ci dossier bi ñu ko jàppee euh, mu ngi nekk en détention provisoire dossier bi nekk en instruction y a pas de procès y a pas de jugement nan la ko Macky Sall di bàyyee. xam nga man liggéey naa ci mbir mu demee noonu ci temps ñoom Ablaye Wade. ak ñoom Cheikh Tidiane si ñu ngi fii dima ma dégg dem si yàlla ji Pape si ak Habib si ngi fii di ma ñu nekk yeewu ñoom ñëpp Landing Savané ak jabaram ñun ñoo dem seeti woon Djiboka waxtaan ak moom ni nañ la ko bàyyi pour des raisons humanitaires ils n'avaient même pas fait dix jours de grève de la faim ak ñoom waat ñu liggéey ak ñoom mais bañ pare le lendemain dañu libéré ñëpp c'est-à-dire que gis nga. mais ñooñu lan lañ leen jàppee woon expliquer benn affaire boo xam ne mooy suñu problème boo xam ne moom lañu am c'est c'est l'hyper présidentialisme c'est-à-dire que président de la République il a tous les pouvoirs et il n'y pas de limite à son pouvoir ça c'est un léegi la justice suñu justice yi am c'est une justice qui fait allégeance au pouvoir euh, au, au pouvoir exécutif ñoom ñooy seen chef ñoom ñooy chefu le conseil supérieur de la magistrature te ñoom culture boobu lañ am loolu moo tax suñu suñu magistrature suñu magistrat yi meluñ sax comme magistrat béninois yi meluñ ndax sax ci ak comme magistrat anglophone yi magistrat Gambie yi ñoo leen a gën a am indépendance donc culture boobu il faut ñu indi ko ci suñu magistrat yi président am na am na pouvoir yëpp am na pouvoir bu ne tey génne leen ko ñu génne ko Macky Sall am na am na pouvoir boobu bu Macky ne tey nañ ko génne nañ ko génne te loolu la Macky Sall war a def. liberté provisoire. moom laa la wax. ñu ñu ñu ñu placé ko sous contrôle judiciaire. amul problème mais nañ ko génne jébbal ko jabaram yi jabaram yi ñëw nañu ñaan nañ ko jébbal ñu faj ko. nañ ko jébbal ñu faj ko te nañ ko jébbal léegi parce que mbir mi bu continuer ni musiba mun na am. c'est-à-dire. musiba kay mooy mooy li ma lay wax c'est-à-dire ñeeg ñi dem ba ne tout est di ko ñi dem ba gis ko jàkkaarlook moom ni tout est possible tout peut arriver. est-ce que vous avez demandé à le voir est-ce que yow dem nga fa. pour euh, def les demandé ko boobu ñu ngi koy tëj ñu ñu ne ma déedéet depuis lors demandé wu ma demandé tu parce que man duñu ma refuser dara feneen waaw demandé na. dem dem waxtaan parce que waxtaan yi may waxtaan yépp pour jàmm am la rek waxtaan yi may waxtaan yépp pour wax pour. pour ñoom ci seen bopp ñu mën a waxtaan régler problème bi parce que problème mu démocratie waxtaan moo koy régler du leneen du ay fetal du leneen bu ñu duggee ci ay fetal moo di moo di jàngoro ji ëppati na leen doole.